du tëddal ci kawam te yëguloo ko xale bu bu xamul dara du ko a gaañ loolee dañ ko tudde woon ay laytaay loolu nag borom bi tabaraka wa taala dafa tuddi kàddu yoon dafa ci ci ñoo ko ñëpp yoon ci alquran ñu laytaay yooyu xam nga nee naa la booy toog mën nga jékki-jékki rek waaxañ waaxañ ñëw toog mbaa nga ni bi war a jéegi dara au lieu nga jéegi ko nga teg neex te loo gis lu nekk rek bokkul ci yoon wi war nga ko teggi bu jiitoo ca kay kay teg li muy teg lu na xool fi mu koy teg biir dafa amu yoon kaw lal lu ñu fay lu nekk dafa am mis ko fay tegee ak fes ko fay waaye loolu xam ne xëy na sàmmoom tew ne loolu waaye xam ne dañu a gën a ci moom bu baax a baax baax sàmmonte ak kaaraange euh, koy defal loo xam ne des na ko ràññee ba des na ko ràññee ba desu ko mag ba du ca ko mën a gaaw balu lor ba luy lora di gaaw a ndax koo xam ne moo liggéey sa bopp moo moo defal sa bopp macha allah lépp des na koy defal des lay soree lépp lépp loo xam ne di raamal di gaañee ak di yëgu dara xale bu xam dara nangam nangam ko defee defaral ay doy gaañ. Question morceau bi dong la ñuy jël defal ko moom mu lalu ñu lalal la ko waaye dafa amit fu ñu koy teg amit nu ñu ko fay tege bu njëkk bi nga xam ne ni eh, li ñu tuddee eh, toile eh, daan ko wax perméable dañ doon wax perméable li ñu tuddee toile woon doon nga gis xale jibi macha allah amoon na ay xob yu baaxoon yoo xam ne xob yooyu xob dafa baaxoon jege yaram wala muy kaaraange ci kaaraange ci yaram woo xam ne yaram wu bees la woo xam ne euh, ndeysaan attanagul dara comme yooyu dañ ko daan préparé di ko dawal fi nga xam ne ci lañu jël xale bi tey morso morso yooyu jamono boobu euh, ñu wax coton tey bu noonu naa waaye ñu xam ne comme morceau yu ñu liggéeyee coton ak yu ñu liggéeyewul coton daanañu ko dawale morceau yu ñu liggéeyewul xale eh, bu ndaw ko daan dawale morceau yu ñu defarewul coton ba xam ni li ñu tuddee morceau yi rabal bokkoon na morceau moom coton bi lañu ko ki ko ràbb defar coton bi ba mu nekk ay man programme bi fii la ko defaree ci programme bi fii la programme bi ko xam ne fii suñu rabal yi sëb yi macha allah coton rek la dama rafet cent pour cent daanañu am morsoy rabal bu ko defee ñu seet ñu màggat ya nga xam ne kenn woo ko rabal yi ko denc ko fu ñu bu xale boobu ñëwee bu xob yooyu dañuy dee rabal yooyu bari lal sànge bi boo ko laxase bu ko defee yàlla daf koy musal ci deram bu boobu nga xam ne dafa dafa nooy lool macha allah yooyu lañ tuddee ay laytaay laytaay yooyu nag Mariam keroo salaam mu mepp ci laytaay yooyu yor ko yegg si nag ci kawam naan ko yaa uxta mata na aboki da kasar da mata moyo jiyero kwado yudai sabadi mutuwa sa yayi tamnak ta hawalu ko moyo ko dilimi yakin borom tabar ko ta ala na tare tare na ko a ko yegi ko mu ne bi mu jaxle bi ko sun borom joxe doon jooju yéen ci biir ñu jox ko doom jooju moom yang toog na ba lay delloo jullit ñi ak lan lay lay ndax la man fu man aw mau borom kër booru musuh malal. tey cuma ma def kot lu ñaaw teef aw ma borom kër du ma def kot ñaaw ni da nga am doom daal noonu la neexee sa borom mu jaaxle nag ci nan lay demee ci nit ñi moom ak lan lay wax donc ba yàgg mu ne yàlla te ni nit xabla hada wa kuntu nisyan mansiya aka neexoon nan ma dee tey te neexoon na dee lu yàgg di ku ñu fàtte ba fàtte sama lépp fàtte ma fàtte ma fàtte lépp lu di lu aju woon kuntu nisyan mansiya may ak fàtte bés bu ñu fàtte yàgg sun borom ni ko fabal xale bi ca dem gis nga boo demee ci sa nit ñi lii ngay xalaat boo demee buñ la songee ak lu ñu mën a wax ne leen te jiidi damaa yéene waral sama borom nii nafartu li rahmani sawman falam ukallimal yawma insiya tey duma wax ak kenn tey waxuma ak nit tey duma wax ak nit damaa yéene waral sama borom woor mooy mooy tekki lépp loo xam ne soo ko yéene def rek ku woor ci ñam mooy doo lekk doo naan waaye nga woor ci wax mooy nga noppi ñu ko tey da nga di wax ne damaa woor ci wax nafartu li rahmani sawman falan ukallimu al-yawma insiya loolu nga leen di wax waaye Maryam dégg xale boobu ci laytaay yëpp li ma la ci bëgg wax mooy baatu laytaay yi yàlla tuddi ci alquran ñetti yoon bi mu meebee xale beeg laytaayam yi yegg ba ci nit ñi ba ñu song ko ba wax ko kàddu yi ñu ko wax ni ko yow de jigéen a Haaruna moo yow wax ko kàddu yu ñaga si ñu ko wax mu joxañ leen mbir bi ñu ne ko ah yow dañoo yaakaar ne danga ñuy foye mag ñu tol ni nun nga def bis bii def ñëw nuy wax ak yow nga di joxa joxañug liir ñi wax nga naan dama war tey ci wax waxuma ah yow beneen ko waaye it la suñu borom tabaraka wa taala jox digal mbir bi mbir bi àdd mbir bi àddoon ɓe ni inni abdullahi man de jamu yalla ya la kon dakal ni len xaar kàddu yu mujj yi ñu di wax ak kaddu bu ñu nar a wax ëlëk dakal ni len xaar kàddu bo xam mo doon wara dem ci seenam xel kon ni indi abdullah man jamu yalla la ñu xamni kon yalla mi ñuy jamu te maryam doon ko jamu bañu sétalé ko jàkka ji moo mu ne kalimatu al mahdi ko ñëw ci alquran gitu. nit do mu ne bil mahdi wa kaxla ya. loolu yalla ya wax na mo ngi tam ci suratu ali imran ay ñen fukk ak juroom ben car ay quarante six la ya. ko yalla wax waaye yàlla fil mahdi wa kahla wa is allamtuka mu ne ko leneen lu leen loo xam lu ne mala ko xam loo fi xam lu ne maa la ko xamal loolu yàlla mu ngi koy wax yontu yàlla Isa ci suuratu Maryam ñu ngi koy wax ci suuratu Maïda ñu ngi koy ci suuratu Maïda ci aaya téeméer ak fukk ak benn mooy cent onze wa kahlan fil mahdi wa kahlan wa iza wa iza allamtuka maa la loo xam maa la ko xam déedoon ni ko fil mahdi sabiya loolu ngi wax ci suuratu bi tabaraka taala wax na ko kali ndax maanaam berse bi laytaay yi li nga xam ne ci lañ daan تو گرم سانم من جنگل